mun a yaay booy hmm. yow boo nekkoon sama sama sama xarit ak sama yaay may dem élection ma ñëw ne la mais yaay dama am élection ndokkale <laughs> ah, ñun ñi politique kat dañ non non amical yi dañuy seet non niñ ko transposer <laughs> au niveau de l'université moom a jaaxal parce que nous on a fait des campagnes ailleurs da ngay ñëw da ngay ñëw wax. def proposer sa programme ñu fal la mais kii mu laaj xaalis moo ma jaaxal. man daal euh, li may tëjee mooy li may annoncé li may tëjee mooy. maa ngi woo. Ousmane Ousmane une minute. une minute rek maa ngi woo képp ku nekk université Cheikh Anta Diop. mu privilégié jàmm ak. jàmm ak salaam waxtaan. déjà waaw je pense que. la solution de la fin. pour solution euh, yi mooy amicale yi. seen fonctionnement il faut ñu xoolaat ko. Mhm. mu am plus de transparence am nañ euh, man jàpp naa ni dafa war a am amical parce que il faut aussi nit ñi am ay interlocuteurs expérience yi amul amical yëpp université dafa am ay période yu trouble donc mm-hmm. amical mais ni ñuy fonctionner subvention yi leen di jox mm-hmm. les questions liées aux codifications euh, parce que loolu aussi dafa am ay enjeux mm-hmm. euh, amical yi aussi politiciens yi am na ay enjeux yu ñu ci am parce que dafa am parfois ay Euh, bataille, bataille interposée parce que à travers les élections d'une amicale en toi en derrière dafa am ay compétition entre ay partis politiques. Mm-hmm. Ah, euh, pour pour ñu gagner. wax de parti il y a des candidats de parti. ñu ngi liggéey yi nga xam ne c'est d'ordre conjoncturel. Euh, mais dafa am yoo xam ne c'est structurel. moom wax na ci lu bëri massification bi il faut ñu wàññi ko nañ ci ñëwaat. ci université Cheikh de Dakar yeneen universités yi monté en puissance. Mm-hmm. ñu ñëw à des proportions normales. Mm-hmm. franchise universitaire ni ñu koy appliquer ñu xam ne. bu amee fitna biir université police dafa war a dugg parce que il y va même de de de la sécurité des étudiants on doit contre leur gré. de la sécurité de tout le monde déjà merci merci Khalifa si ñëw bi nga ñëw parce que il n'arrive pas d'habitude que les responsables di ñëw di fekke ñu ngi la siy gërëm di la sant le mm. directeur qui t'a permis de venir Ablaye ñu ngi lay gërëm Ablaye c'est vraiment jeex na may kaata dañ may kaata di nuyu également ak seen bourse yi aussi di nuyu également euh, professeur Fatou Sarr honorable député Amadou merci amis téléspectateurs ñu ngi leen di jox rendez-vous dimanche prochain si beneen